lii en direct le Nimbour. Quel kenn nettali ma ko mangi tao. man la Ousmane Ndiaye Ponce Mangi ni taxaw direct la Nimbour. ni ni nii Tay, tay. tey di mardi di quelle l'heure même tey du mardi je vous dis je vous dirai tout de suite l'heure à 11h42 ñu génn corps regardez ils ont ramassé plusieurs corps presque il paraît qu'il y a 200 dans la mer nii la une forêt ndànk canal. sont la du ay léeb du ay léeb mun nañu foraat léegi benn fii tout suite foraat léegi benn koor bu ko fi jar pour quelle raison lan moo ko fi jar yàq àdduna sa famille ku demoot ku dig ba ba yàlla jël ko fi tey nan lay waa këram nu ñu demee tey hmm? duñu misère ba dee du ko fi jar te yow yaa ngi doon dund di añ di reer di ndékki am say copain di tedd hmm? di dem say kër copain ngeen di daje di waxtaan di dem def la neex di dund fii Sénégal bu màggal jotee nga dem màggal bu tuub bu Tiwaawan jotee nga dem fa Tiwaawan bu Kaolack jotee nga dem et nit ñi vous avez vous avez tout bafoué, vous avez tout bafoué. je parle aux morts même vous avez tout bafoué. par rapport yi ñuy génn regardez-moi ça parce que ça c'est ça c'est ça ndax lan ndax lan ndax lan alalu àdduna alalu aduna alalu àdduna waxaat leen waxtaan leen nag xañ doom yenn kilifa